salaamaaleykum salaamaaleykum euh, comme ni ma len ko waxe won rek sank rek neena naa tay lepp luy neub fi nga xamne mo nek mbacke muy ay mbot muy lu mu muti doon rek man Sister Zeyna la puissance man maa koy génnee ba tay neena la leen ba tey génnaguma mbacke ma ngi mbacke mo tok ak styliste bu mag nag macha allah muy ñaw lu reuy wa mbacke yëpp xam ko wa Dakar yëpp xam ko wa senegal yëpp xam ko mu koy daal dekk sama micro rek mu daal di nuyo señ bi nuy naal waaw assalamu alaykum wa rahmatullah yéen wa El Vision Média maa leen di nuyu bu baax di len jaare bu baax baax Euh, di kontan lol ci seet si bi ngeen ma seet malin wax dëgg yalla ma ngi di nuyu bu baax. bëggoon xam tour bi. waaw man nak euh, sëñ Modou Kébé laa tudd euh, ma ngi dëkk fi ci Mbacke Tabla Caabi Palen. tailleur bi tudd na xam ci Taysiir Couture. waaw Taysiir Couture bon. Taysiir Couture. Taysiir Couture waaw. waaw ñoo ngi fi di xol li nga xam ni mo xew rek ci jamono ji ñuy nekk ci lolou ndax euh, bu ngeen duggee ci atelier bi rek war na seen xel war na dem ci loolu. waaw sunu xel lu mu ci demee ëpp na macha allah ñu ñëw fekk la nga def ay robe yu baax ay taaymaam yu baax euh, nan ngay sentir li def li nga xam ne moo nekk ñaw ci Mbacke. waaw Mbacke moom dëkk bu neex a liggéey la ndax ñun bañ fi nekkee ba léegi ñuy góorgóorlu te ñi gis suñu bopp bu baax na ci liñ nekk quoi moo tax ku fi nekk ku nekk rek dañ lay encouragé ndax mën nga fi am lu ne. Eh, kon ñun ñu ngi ci yoon boobu te incha allah rabbi dañu bëgg di ñu gën ñu gis fu nekk daal ñu ngi dox bu baax. ñëw day faral di génn Mbàkke di dem si yeneen réew. waaw dañuy am ay client fii ba Italie damay am ñu ma fay ñawal ñu bëri des fois mariage sax dafay am ñu yónnee ma ay seen ñaw fii ma leen fay ñawal eh, am naa foofu sama ay sœurs yu fa nekk yoo xam dañ may envoyé seen ay ñaw ma leen koy ñawal ak ay xaritam yu bëri vraiment sunu ay ñaw daal day dem fu ne day dem fu ne vraiment. waaye Mbacke tamit dañ lay wuyu si bu baax. waaw Mbacke moom vraiment munuma leen a fay ndax euh, dàmm yi nga xam ni yàlla dogal na maa moom sunu ànd euh, te mu ciy dox lu rafet wax dëgg yàlla xam na ci dara ndax à chaque fois day ñëw fii euh, xam na ni affaire yi deme dama naan la euh, dama naan la bësal foofu sa rek ma ñëw euh, muy dàmbaay xaal muy nit ku baax musique ah, di wéy lu neex euh, muy xewle kañ le 8 mars nee du yomb nee ma Sister Zeyna la puissance dama lay téye fii ba 8 mars jot gisoo ma dañ maa sol soow fu mu nekk ni ba may reggaeton du yomb waaw boo ko defee doo ko rëccu de waa Mbàkke dañoo xam teraanga de ñu xamee teraanga ëpp na waaw ah, lu leer laa lay tegal ndax ki la fi indi juumul waaw ki la fi indi xam na li muy def bu baax te ñun à chaque fois li nekk ci moom rek lay bëgga wane quoi mooy jëmm ji Baay Faal la te ñun dañuy sagoo ku mel noonu ndax ñun ay Baay Faal lañ yàlla dogal na te gëmuñ ko dul Cheikh Ibra te moom à chaque fois bu toogee loolu lay wane kon ñun munul rek ci lu mu nekk rek ñu fekk ko ci loolu vraiment man sama yéene yëpp loolu la lu mu nekk ma fekk ko ci ndax li muy doxee mooy Cheikh Ibra te man Cheikh Ibra laa ba jeex waaw Eh, bëggoon na xam eh, ci ban année nga dugg ci li nga xamne ne nekk ya. tëyër ndax sha allah sa loxo dafa set muy ci lan muy ci ñaw gis na say ñaw yi nga xamne nga ko sha allah ci ban année nga ci dugg. man nak ma ngi dugg 2006 2006 mana na la la ci dugg nekkoon nak sama ben patron bu ni wax njaga muy waju bax ma ngi koy nuyu bu bax mom tamit ba léegi rek daanaka saa su ma demee Dakar damay dem ci mom fofu la jàng ñëw ci mom ba yalla dogal mu berma fa la dem tani parce que 2006 ba 2012 fa laa nekk dem naa fi mal Mali tamit. Euh, xam nga waaw di fa ñëw waaw lépp ci gëstu rek gën a xam affaire yi fu ñu koy euh, gën a mën a jaar ba jekk ko ndax man bi may génn fii di jàngi euh, ki nga xam ne mooy sama sëriñ daf ne ma woon jàng mënul ñàkk waaye loo war a donn la loolu nag laa gëm ba tey moo ma yóbbu fi ma nekk. naa xam euh, bi nga delee ñëw ba tey yenn jafe-jafe yoo xam ne yaa ngi koy jànkonteel ndax euh, métier yëpp a métti ah, du ñàkk tam bés ñëw nga jafe-jafe ay euh, nga jànkonteel jafe-jafe yoo xam ne dalay lay sa biir xool hmm, waaw mais yombul nag yombul quand même quoi yombul waaye nag ñoo ngi ciy sant bu baax nag ndax yàlla mi ñuy suturaal bu baax daal bu ñu ku ñu gis danañu jox cër naw ñu ci lu ñu nekk te loolu rek ab sag la dèjà ñu ngi ciy sant bu baax li ngay ñëw yaa ngi si yëg sa bopp bu baax. baax waa ngi ci sama bopp a baax ndax moo may tey fii ma nekk nii donc bu ma ci yëguloon sama bopp ba léegi maa ngi ci leneen mais yàlla dogal na maa ngi ci yëg sama bopp maa ngi ciy li ma ci war a am euh, ñëw ma kenn tamit donc loolu rek doy na quoi. yow macha allah ku la gis rek xam ne yow li ngay def yaa ngi si yëg sa bopp macha allah ndax nee naa awkat da nga koy gis rek xam ne aw awkat bi kat day awal boo xam bëgg naa ko ci awkat euh, nan ngay dundee ñi nga xam ne euh, yaa ngi nekk ak ñoom di la jàngal ñaw. waaw vraiment ñuy ay xale yu baax nag vraiment xale yu baax yaru bu doon sama sago sax di nga ci jël kenn wala ñaar laaj leen mais xam naa temps bi da koy day xaw a xat. xale yi ni ma leen laajee wax ma tan lañu sentir ci ñoom. Mhm, waaw parce que xam nga rek duñu ay xale yu baax vraiment euh, dinaa ci nuyu kenn wala ñaar muy Moustapha Ndiaye ak sama rakk ji muy Cheikh Kébé nga xam ne ay xale yu yaru lañ maa ngi fi ay xale yu jigéen yoo xam si sax dañoo ñëwul waaye kon di nga leen gisaale ku ci mel ni Awa taal ak Ndate ak faatu ñeneen ñoom ñëpp. vraiment ay xale yu yaru topp ci man tamit lu ma bëgg rek à chaque fois dañuy nekk la ci man loolu quoi moo tax maa ngi di sant bu baax di leen gërëm en même temps maa ngi di ñaanal kenn ku nekk li nga bëgg tamit nga am ko quoi parce que sama yéene ci ñoom loolu la bëgg naa ñoom it fu ñu génn dem bu ne sëñ Modou ñu am fu leen teg xam nga kuy def lu baax da nga koy wane bëgg naa tamit nga daal di joxe sa numéro nga joxe say coordonnées yoo xam ne macha allah bu la nit di seetaanee gis li ngay def nga wane say ñëw macha allah mu rafet euh, dinañ la mën a song waaw sama numéro téléphone muy 77 963 95 68 am na Tigo tamit 76 860 16 38 ñaari numéro yi daal ku ma soxla euh, boo ma ci woowee incha rab rabi di ma jot te dina defal lu sedd sa xol incha allah rabi. ndax Facebook yaa ngi siy faral di connecté waaw maa ngi ciy faral di dugg nag mais fan yii xaw na maa ko dugg ci Facebook bi waaw xam naa loolu nag dana ma xaw a jafe pour l'instant mais lu ñu war a créer la après parce que am na am na yun yoo xam mais loolu rek taxu ko woon jóg moo tax. Euh, mais inshallah rabbi dinañ ci am yuñ ci yuñ yuñ ci liggéey bu baax ba benen yoon bu ñëwee ñu mën leen teg ci yoon bu gëna ci kii macha allah comme ni len ko waxe won nee la sister Zeyna la puissance du ma mos a bàyyi fi fek fi xalé euh, di ñaw euh damay daal di gungé rek mo wax ma xale yi nu ñuy def bëggoon naa tamit xol xalé yi tamit lu ñuy def euh, ki ni nga wax ma lu muy ñaw lu mu doon. waaw ki xaftaan lay ñaw ma Moussa la mom tamit xalé bu bu sawar bu bu jambaré wax deug Yalla kaptan lay ñaw ni xam nga ñun mom ay bay fall lañ dañuy soxla xéti ñaw yu melni nii quoi waaw ma musa ma musa waaw ma musa bari nga jamm de loy muñ waaw bari na jamm kay ma musa euh, li nga ñëw dafa melni yang koy sentir sa bir xol waaw ma ngoy sentir waaw lan ngay wax sa patron bi nga xamne mom nga nekkal waaw li ma koy wax di ko bu baax rek mom moom ko baax la mu ben problème bu mbeug suba ci ngoon dañ ci taxaw rek inshallah allah ko ak mom bam jax tak waa El Vision est-ce que xam ngeen dara waa Mbàkke xale yi nu ñu yaroo rek dafa ëpp yaroo na nu na ci kër àdduna nee naa la ba tey duma bàyyi bëgg naa tamit nga daal may gunge ma daal di doxantu rek ak xool sa euh, élèves yi nga xam ne ñoo ngi fi euh, ma xool tamit lu ñu ñaw euh, nee naa damay ñëw si lii ndax man damaa sob duma bàyyi dara mu romb bëgg naa tamit nga wax ma lii lii lan la ni machine bii nag pakistanais lañ koy wax paquet pakistanais moom lu muy def moom day ñëw comme xeetu 217 saxo lañ koy wax am na ñu koy wax saxo am na ñu koy wax pakistanais comme xeeti 207 comme ñaw bi nii di wékkee moom moo koy ñaw moo koy ñaw waaw. Euh, bëggoon naa xam euh, say xeetu ñaw yow euh, nan lay ñëwee sa biir xel wala yow sa client yi ñoo lay woon ne la ñawal ma ñaw bi wala defal ma lii wala yow yaa njëkk rek di créer sa créer bopp di ko def. waaw xam nga nit ku nekk rek ak li mu bëgg so du ñàkk am ñoo xam ne dañuy ñëw ci yow imposé la seen bëgg-bëgg mais am ñoo xam ne dañuy ñëw doyloo la la am defal ma rek lu rafet ba ci sànq rek Euh, léeg-léeg day am léeg-léeg day am ñoo xam ne dañ lay def lool rek nga xam ne yaa xool loo neex rek nga def ko am ñoo xam ne dañuy ñëw nag proposé la seen yëf bopp quoi du nag dañuy def lépp nag mais du ñàkk rek jël benn affaire rek toog xalaat ko rek ni lis moo ko defee dina rafet nga créé ko moom métier mi ñoo ànd parce que tamit bu ñu nekkee ci métier mi euh, comme tailleur la ñu wax si lis moom mu dul toog rek di xaar ko andil quoi dafa war di à chaque fois muy xalaat lu mu war a def euh, ndax ci loolu kat ci lañ ñuy xamee ba bu ëllëgee ñuy gën a di jëm si ci ñun waaw loolu moom du ci ñàkk moom à chaque fois dañ ciy gën a xalaat tamit nag bu baax. lii de bëgg naa ko euh, téer bi nga xam ne prix bi rek lay xaar mais bëgguma téer boo xam ne dañ naan ko 1 a daw bëgg naa téer boo xam ne def pare na nu ne ci kër àdduna kii ku ko dégg xam ne nu mu ëpp na damay daal doxantu rek ah sama caméraman ma xool ñi nekk fii. Euh, su ma juumul mooy fi ñu jógee sànq muy xale bu góor bi dafa mel ni euh, yëre bi mu ñëw tubayam moo nekk ni su ma juumul. waaw lii roof la roof roof comme li ma la expliqué rek ñun Baye Fall dañuy soxla xeeti ñaw yu mel nii comme bu dee xaftaan bu mag la day am roof. roof mooy lan. Euh, roof nag maanaam ci yére mag ñi lañ ko gën a xam par rapport comme ak yére yu ñu sol day nekk yére bu xaw am jëmm euh, lii ci lañ koy monter après boo ñëwee dara ne bi baat bi di nekk ba pare ci la ñu monter roof yi moom moom la nekk di dawal ni essence bi nii. maanaam mooy bàyyiwoo benn événement bàyyiwoo benn ñaw lépp ngay ñaw. non ñun yàlla dogal na comme li ma la wax léegi suñu njëlbeen wax euh, bi ñu génn di jàng sëñ bi daf ñu ni woon jàng mënul ñàkk waaye kon lu ngeen war a donn la ndax dañoo judd fekk suñu ay maam di ñaw suñu ay papa di ñaw kon bu ñëwee rek dañoo war a feddali loolu waaye waruñ ci jëm ginnaaw moo tax bu ñëwee dañoo xool li nga xam ni lépp lu xew la rek ñu nekk ci loolu waaw mooy yëre góor yeeg yu jigéen yeeg yëpp ñu ngi ci moom incha allah. booy nuyu naa la. waaw na nga def. yow aay nga ah, la fekk ngay ñaw de. li ngay def loo si sentir. Eh, wax naa ko rek waaw. yaa ngi si sentir bu baax. waaw maa ngi sentir bu baax kay. man xalé yi waa Mbàkke dafa melni dañ ma ragal té man bëgguma loolu lamay bëgg xalé bo xamné da dafay féroce xalé bo xamné damay ñëmé muy jàkkaarloo di wax ak man dëgg neexul inshallah lan ngay tagato ak ñi nga xamné ñoy say client waaw di leen sante rek di leen sante bu baax di leen gërëm euh, ndax nak yombul ci ñu nekk fi ni euh, di ñak à chaque fois lélé nga défal ko xam ni dara te duko neex euh motax dañ leen di jéggalu en même temps tamit di leen sàkku tamit ñuy gën di ñëw ndax lépp loo xam ne lu ñu bëgg la rek suñ ko xamee dina nekk ci loolu waaw ñu ngi leen di ñu leen di tàllal suñu loxo di leen wax nan ñëw et puis lu bëgg tamit ñu wax ñu ko rek parce que ñoom ñun ñoom lañ fi nekkal waaw ku fi ñëw te wane sa bëgg rek bu soob yàlla li nga bëgg dañ la ko defal waaw maa ngi di nuyu baax leen jét leen bégg bu baax a baax